salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbay yaa ñu ngi lay ziyaare bu baax waaw sëñ mbay euh, ki nga xam ni takk na lu ëpp ñeenti soxna ba génn àddina euh, maanaam am ci fukk par exemple ma ni juróom benn ya tudduñu soxna xam nga sànq daraa mi maa ngi ko dégg muy wax ba ni dañoo dañ leen a war a jox ci miraas mi ndax yàlla moo ni walakum nisfu ma tarak azwaajukum ñàkk dégg alquran moom moo ko yóbbee loolu dañu dul azwaaj ba pare azwaaj boobu ngay wax dañ koo nekkul ndaxte l'islam reconnaître reconnaître li ñoom ay azwaaj azwaaj azwaaj lañu léegi nag bu fekkente ni soxna yi mënuñoo do duñ doon soxna yi la ca judd ci ay doom doom yooyu duñ duñ mën a doon parce que parce que l'islam leen lu dul nag euh, maanaam en tout cas euh, euh, li li li may wax mooy ni se doom yooyu nekkuñu doomi soxna ndaxte ñoo ña leen jur duñu ay jabar ok du ña leen jur duñu ay ñu ñëwaat ñu ñu kon ñu war a ñëw ci benn masala est-ce que daal doon wala duñ doon wante doom yooyu moom boroom xam-xam yépp d'accord nañ ci ni juddoo wuñ ci jabar léegi nag ndax am na Euh, nga ni xayu njaay ne na am na ci amul benn xadis boo xam ni xadis bu wér bu jógee ci yent bi buy wa buy buy wax ni takk lu ëpp ñeenti soxna dafa aram euh, am na xadis du benn xadis sax ay xadis ay ay xadis ñëw na ci xadis tirmidi xadis boo xam tirmidi ak ibn maaji ñoo ko solo muy xadis euh, euh, ñu jële ko ci an tariq Zuhri an Salim ibn Abdillah an ibni Umar Salim euh, Zuhri moo ko jële ci Salim Salim doomu Abdillah ibn Umar Salim jële ko ci papam ibn Umar Ghaylan ibn Salama as-Saqafi aslama wa lahu ashru niswatin fi al-jahiliyya fa aslamna maahu fa amarahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam an yataxayyara arbaan maanaam Ghaylaan ibnu Salama as-Saqafi dafa tuub fekk booba amoon na fukki soxna ñoom ñëpp ñu tuubandoo amoon na fukki soxna ci jaahiliya ñoom ñu tuub ñoom ñëpp ànd ak Ghaylaan yeneen bi ni ko nag tànnal ñeent kese yi def nga bàyyi leen. Albani nee albani nee na bil jumlati fal xadiisu saxiix bi majmuuci bi majmuuci tariqihi an Salim an ibni Umar waqad saxaxahu ibnu Xibbaan wal xaakim wal bayhaqi wabnu Qattaan wala siyama wa fi maanaahu axaadiis uxra albani lu mu wax dana xadis bi xadis bu wér la ci tariqam yi mu ñëwee yëpp tariq yoo xam ne dafa ñëw ci tariq Salim an ibni Umar ibnu Xibbaan wéral na xadis bi xaakim wéral na xadis bi albayhaqi wéral na xadis bi ibnu Qattaan wéral na xadis bi am na yeneeni axadis yoo xam ne yaa ngi dégg yu dul yii euh, yeneen yooyu euh, jële nañ ci xaaris ibnu qays al asdi wala qays ibnu xaaris mu ni aslamtu wa indi samaani niswatin fa zakartu zalika linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam fa qaal ixtar minhunna arbaan Abu Daawuda moo ko solo xasanahu Albani Albani moo Albani rafetal na xadis maanaam xadis bii mi ngi ci Irwa al-Ghalil bu Albani Qays ibnu Xaaris Qays ibnu Xaaris nee na man de damaa tuub fekk booba juróom-ñetti soxna laa am ma wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ni ma tànnal ci ñoom ñeent kese. Shafii rahimahullahu taala wax na ci ci téere téereem boobu tudd al um wax na bi bi sanadihi maanaam dafa cëslaay goo xam dañ ko jële ci Nawfal ibni Muawiya mu ni Nawfal ni aslamtu wa indi xamsu niswatin fa qaala li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam amsik arbaan ayatuhunna chita wa faariqi al uxra yaa ngi dégg ibnu kasir ne maanaam euh, nawfal nee na tuub naa bi ma tuubee euh, euh, bi ma tuubee damaa tuub fekk booba juróomi jabar laa am juróomi soxna yonent bi ñu ma jëlal ñeent te nga nga fase kenn ki ibnu kasir nee na fa haadihi kulluha shawahid bi sixati ma taqaddama min xadis gaylaan mu ni kama qaala alxaafid abu bakar al bayhaqi rahimahullahu taala léegi shafii rahimahullah shafii nee na fa dallat sunna fa dallat sunnatu rasulillah ala anna intihaa allahi azza wa jalla fi l-adadi bin-nikaahi ilaa arbac taxriima an yajmaca ar-rajulu binikaahin bayna arbaci akthara min arbac shafii nee na sunna day tegtale ni maanaam yàlla subhaanahu wa taala ñeenti jabar ñeenti soxna yi mu ko yemale ñeenti mooy tegtale ni dafa araam góor mu ci góor muy takk lu ëpp ñeenti soxna dafa maanaam eh, amul amul ibn Hazm nee na ittafaqu ala anna nikaaxa akthara min arba'i zawjaat laa yaxillu li ahadin ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam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 mbokk yi waxul jaal xaq ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel te di leen ñaanal yàlla bu baax e, di nuyu boroom xam-xam yi di nuyu itam e, ñi nga xam ne ñoo jiite groupe bi waaye di settee ci nuyoo bi muy imaamul Busayri di ko siyaar bu baax imaamul Busayri Eh, dañuy faral di waxtaan toujours maag moom xëy na mu nekk nit koo xam ne léeg-léeg moom uute bi dafay daf koy daf koy xaw a tuuse ba mu xuloo coow lu bari loo xam ne dafay mujj réeral dëgg ji nga xam ne jooju lañ doon waxtaane suñ waxtaan yu paase bi ñëwee ci xadisu tayr bi lu mel noonu la fa jëfandikoo ma jox ko ay maraaja mu wane ne maraaja yooyu nekkut fa te fekk demut seeti sax maraaja yooyu noonu loolu yëpp dafay wane xëy na ak diis ci xam-xam yemut ci mu ne xadis bi maanaam gannaaw boo xamee ne fekk nañ sanad yu wér dootu dàq nangu ne xadis bi ndax nee na ibnu kasir ci boppam dàqut xadis yépp waaye bi saxalee ne xadis bi wér na maanaam mu ne même bu saxee na xadis bi wér na mu ne lii problème mooy xadis bi su wéree dafay mel ni kon Seydina Ali ibn Abi Talib moom su boobaa moo gën yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax yonent bi daf ne yàlla andil ki la gënal ci mbindeef yi mu lekk ak man kon su fekkee nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñaan loolu Seydina Ali ñëw mu ne kon su boobaa naa lii moo gën ci mbindeef yi damaa xamul nag keñ la imaamul Busayri nangu ñu jël xadiis jëfandikoo ko ci xel maanaam comme moom loolu wérut ci xelam rek kon xadis bi warta wér waaye foofu daf fa coow rek fekk ma am ay gan mbir yi taxaw ñaareel bi ci tegee mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na xadis boo xam ne su boobaa ñoom mosu ñoo nangu ñu utiliser xadis boobu ci xel ndax su wéree loola it dafay mel ni kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na keneen koo xam ne moom moo ko gën eh, <clears throat> waaw kay su ko defee kon ñu continuer ci liñ doon wax eh, foofulee imaamul Busayri dafa am lum utilisé maanaam loo xam ne ñoom duñ koy nangu duñ koy nangu masalan mooy jël xel dugal ko ci maanaam nas di ci jéem a indi sa xalaatu bopp mooy waaw xadis bii même su wéree dafay wane ne kon xadis bi kat eh, dégg nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam Seydina Ali yoo ko gën ni ngeen déggee yéen ñëpp ñu doon bañ ci xadis bi ñu doon wax ne yonentu alayhi salaatu wasalaam dañ ko njabar dañ koy nangam am ñu jëfandikoo xel ñoom wax ne xadis bii kat bu wéree dafay tegtale ne yonent bi mànduwut wala nangam ñu ne léegi loolu lu tax ñuy jëfandikoo xel ci xadis kon gis nga ne léegi tey nga xam ne bokk na ci aadaay salafiste yi seeni boromi xam-xam mooy ñoom waxtu wuñ soxlaa dara maanaam dees nañ sukkandiku ci hadisu mursal wéral ko sukkandiku ci ndax ñoo ko soxla waxtu wuñ ko bëggee dàq dañ koy dàq ca dañuy maanaam su hadisu mursal ñëwee dañ naan lii hadis bi mursal la te hadisu mursal nawun maanaam benn anam la ci ahadis daif yi maanaam hadisu mursal dina tegtale dafay tegtale ne maanaam aslum mooy mooy tegtale ne lu hadis bu daif la bu wérul la <coughs> naka noonu ngay fekkee ci ñomit bu fekkee na hadis dafa ñëw ñu bëgg koo saxal hadis bi xaw a am tuuti nuñ ca mën a déggee lu mel ni hadisu Seydina Ali ibn Abi Talib bi bi yenentu wax ci Seydina Ali ne yow yàlla indil ma ki gën ki la gënal ci sa mbindeef yi ngir mu bokk ak man lekk ñu ne ah waaw hadis bi même bu wéree dafay wane nekkoon kon Ali yoo gën yonent bi te yi man sa gën yonent bi alayhi salaatu gis nga ni jëfandikoo xel biñ demaatee ci hadisam yonentu alayhi salaatu wasalaam njabar nañ ko ba mënatu la def dara wala yonentu bi alayhi salaatu wasalaam daan na def dégg nga jël na soxnaam eh, dégg nga jël na jéebéeram tëdd ak moom ci kaw la lalab soxnaam ci ayem ba soxna ab sa nekkoo ci sama lal yow rasulullah ci sama néeg ci sama aye ñu ne waaw non loolu tegtalawut dégg nga euh, ne nangam loolu kenn du ci dugal euh, affaire xalaat ndax loolu lislaam ni mu tënku mooy nangam ak nangam kon ñoom toujours loolu seen méthode la léegi nag méthode boobu wax dëgg yàlla damay waral di wax ne man du amaana ilmiya masalan euh, hadis am hadis bi bu ñëwee tey ñu soxla ñoom saxal li hadis bi wax ngir hadis bi ñëw ne ci buxaari yu ak muslim dañ naan waaw hadis bi wér na ndax buxaari yu ak muslim andi nañ ko benn kon képp ku uutee ak buxaari ak muslim yow yaa juum waaye buxaari ak muslim ñoom duñ juum te loolu li ciy firnde mooy dégg ngeen ko ci waxtaan bi passé mu ne hadis bi boo gisee ñu dàq ko mooy wa xaalifu li maa fi sahihay ni maanaam ngir dafa uutee ak li nekk ci buxaari ak muslim kon lépp lu uutee li nekk ci Buxaari ak muslim rek ñoom su boobaa dañ koy dàq loolu nag du amaana ilmiya <clears throat> beneen bi ci tegee mooy maanaam ci jëmme xadis bi buñ xoolee ñoom jëfandikoo xel biñ bëgg bi imaamul Busayri yi bëgg a def fii léegi nañ dem ci siyaru ahlaamul nabala wala ñu dem ci tabaqaatul kubra bi ibnu saadin waxu saydna ali bi mu wax ne lam yabqa ahadun la yubaali lawmata laaim gayra <clears throat> abi darrin amul kenn ku des kooku masalan dana ragal ku ko yedd wala dina faale ku ko yedd lu dul abu darrin loolu ndax dafay tegtale ne abu darrin moom rekk la ci àdduna wala déedéet loola yaakaar naa ne qarina bi moom moo koy jàngale parce que dafa am lu ulamaaw usul di tuddee al qarina léeg-léeg mu qarinatu nas dafay am léeg-léeg qarinatul aqal dafay am beneen bi buñ demee ci hadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu wax ne ma aqalat alxubara wala asalat alxadra min rajulin asdaq lahja min abi sarrin maanaam xasamaan ak suuf doxut ci asamaan tiimut suuf ku gën a dëggu lahja abi zarrin ndax dafa wane ne abu zarrin moo gën a dëggu lahja yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo gën a dëggu lahja ali ibn abi talib moo gën a dëggu lahja abi bakarin moo gën a dëggu omar ibn alxataab tegtale wut loolu parce que li tax mooy faaw ñu jëfandikoo xarina foofu faaw xarina mooy leeral foofu noonu beneen bi ci tegee mooy yàlla dafay ñu wax ci alquran ne képp koo xam ne da ngaa nekk noon ñeel yàlla nekk ñoon ñeel yenantu bi nekk noon ñeel malaayka yi ba nëpp mu ne nekk noon ñeel jibril ak mikaayil mu mel ni kon jibril ak mikaayil bokkuñ ci malaayka yi aakañ ah, loolu xarina bi moo tax loolu tax ci luxal arabiya da gis léeg-léeg ñu tudd leen jublu ci lépp léeg-léeg ñu tudd lépp jublu ci leen te moom ci boppam sax maanaam am na ci bi muy layal loola baatu kullu aagoogu kulli gi def na jubluwuñ ci lépp kullu la boo xam ne taxsis la waaye du taamim kon loolu li muy firndeel mooy nit koo xam ne masalan lépp lu mu bëgg saxal rek daf koy saxal léegi nag ma ñëw ci masala yi nga xam ne àtte na ko waaw ñu ñëw nag ci maanaam àtte bi mu àtte ne soo takkee lopp ñeenti jabar jabar yee ca tegee ñoom duñ donn benn ñaareel bi seeni doom duñ donn maanaam moom dafa labal lépp rek wara ne seeni doom duñ donn seeni jabar duñ donn maanaam jabar yi nga xam dañoo ëpp ñeent mu sukkandiku ci ay ahadis am lum tudd maanaam ci audio yi ñu ma yónnee texte bii ma dugalal ko eh, mooy waxi sëriñam ibnu taymiya wala seen waxi sëriñ ñoom salafiste yi ibnu taymiya dafa wax ne jullit ñépp dañoo dëppoo ne bépp sëy boo xam ne dañ koo fas maanaam te sëy ba yàqu ca pasin ga laal am ca mu ne su boobaa boobale sëy dañuy jël doom ja aj ko ca baay ja su ko defee baay ja ak doom ja danañ donnante bi ittifaaqil muslimin kon fan la imaamul Busiri jëlee ne doom yi duñ donn kanaa du ci sëriñam xaj na tey dafay sukkandiku ci ñeneen donte sax dafa nekk nikaahu baatil fi nafsil amr loolu la ibnu taymiya wax bittifaaqil muslimin kon yaakaar naa ne lii bu ngeen liiree texte bi jaratoon sax ma koy jàng ndax bu ngeen liiree texte bi jàng ngeen arab yéen ñëpp da xam ne lii uuti naa li mu wax léegi nag xam nga am na koo xam ne dafa takk ñeenti jabar ba pare takk juróom juróom benn waaye li ko ci dugal mooy ñàkk xam ndax ko sax su boobaa mu def dañ ko tuddee njaalo masalan tey dafa laaj borom xam-xam boo xam ne daf koo laaj ne ko waaw li yàlla wax ci alquran ci kuy takk soxna ñaata soxna nga mën a takk kooku na ko mën ngaa takk juróom-ñeenti soxna ndax li tax alquran dafa wax ne mas naa wa sulaasa wa rubaa boo ko boolee juróom-ñeent la léegi mu ne ko te yonent bi alayhi salaatu wasalaam juróom-ñeenti soxna la takkoon masalan waa ji moom dafa réew mi am na ñoo xam ne liiruñ téere yëpp léegi nag bi mu laajtee ñu defal ko fatwa loolu moom mu takk juróom-ñetti jabar bi mu takkee juróom-ñetti jabar dem ba jot a am ak ñoom doom léegi nag bi mu gannaaw si gi masalan balaa muy génn àdduna ñu xamal ko ne ko ah jabar yii nga takk kat li wér ci sariya mooy ñeenti jabar nga waroon am comme yeneen ñeent yi daganuñ la sëy ba yàqu na léegi xam nga su baa dañu jàpp ne kon ci sariya sëy boobu baaxul mu ne leen waa léegi doom yi ma ci am nag su boobaa naka lañu naka lay def ak doomi doom yi ci boobaa dañ koy aj ci seen baay su boobaa doom yi danañ donn seen baay loolu mooy mooy mooy mooy li wér euh, ñaareel bi ci tege mooy loolu lañ wax ne su fekkee ne dañ maanaam sëy bi dañ ko dañ ko koo takk ci maanaam takk lu ëpp ñeenti jabar ci ñàkk xam su boobaa dee su ko géttan moom parce que li tax mooy def ko def ci ñàkk xam léegi nag suñ dàqee géttan rek su boobaa ndono dafay ñëw taxaw parce que dañoo wax ne ñaar duñ dajee mooy gëtën ak maanaam ab askanal duñ dajee suñ ne diw dañ ko war a gëtën rek kon doom ji doon nag waaye buñ dàqee gëtën ga kon su boobaa doom ji moom dañ koy aj loolu la ñuy wax loolu loolu mu ngi aju ci masalaam maanaam ilhaq wala istilhaq loolu jàpp naa ne eh, mooy li nga xam ne moo mànd ci masala mi mooy doom yi moom dañuy donnu même bu fekkee ne ñu sukkandiku ci hadis bi de sax doom yi moom dañuy donnu léegi nag mu des jëmmi hadis bi nga xam ne indi na ko parce que du ma indi ahadis yëpp ndax dafay gudd ci wax waaye jëmmi hadis ji mu indi moom. waaw mu des nag ci jëmmi hadis bi andi indi masalan hadis baa ngi noonu maanaam jógee ci Hanaada mu jëlee ko ci Habdatu mu jëlee ko ci Saïd ibn Abi Uruba mu jëlee ko ci Maamar mu jëlee ko ci Duhri mu jëlee ko ci Salim ibn Abdillah mu jëlee ko ci. Eh, ibnu omar mu ne waa ji ñuy wax xaylaan ibnu salamata ashaqafi dafa tuub am fukki jabar yum gàddu woon ci jaahiliya bi mu ñëwee tuub yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko tànnal ñeent ci ñoom nga bàyyi ñi ci des lii waxu sëriñam la imaamul buxaari dafa wax ne <clears throat> rawaahu maamar an duhri an salim an abihi dégg nga maanaam mu ne nag wa samiatu muhammad ibnu ismaila maanaam ki nett li ne wa samiatu muhammad ibnu ismaila moo tax ma ne waxi buxaari yi laay nett li muhammad ibnu ismaila mooy buxaari yi mu ne buxaari yi wax na ne haada xadisun gayru mahfuus kon xadis bi du xadis boo xam ne buñ mokkal la maanaam li Cheikh Moustapha Cissé doon wax léeg-léeg bu Oustaz Baba Dia wala daraami waxee ba nekk mu ne darsu bi mokkaluma ko imaamul buxaari yi nag kon topp ndoor na Cheikh Moustapha Cissé Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha Diop kon ci waxam jooju Bukhari nee na xadis bi moom mokkalu ko xadis bi mu xam moom bokkute bii xadis bi mu xam mooy waa ji nga xam ne dafa takkoon ay soxnaam fase leen jël alal ji séddale ko bi mu séddalee alal ji yonent bi ali ba ci jamono Seydina Omar Seydina Omar ne ko li nga def lan la demal nga fayle ji sa soxna yi mu fayle soxna yi ba pare jëlaat alal ji maanaam ñi ko war a doon doon ko kon imaamul Buxaari yi mii sëriñam sax mokkalut hadis bi hadis bu imaam Buxaari yi mokkalut nag xam naa ne ab taalibe mokkal ko muy Cheikh Muhammadul Busayri loola lu doy waar ñu ñëw nag ci jëmmi hadis bi jëmmi hadis bi hadisu mursal la maanaam hadisu mursal moom yaakaar naa boo demee ci tey si euh, tey siru musalul hadis ci page quatre-vingt-huit dafa wax ne al aslu fi hadisil mursal mardudun maanaam lay cosaan ci hadisu mursal mooy da mooy mooy mooy daa daif la mooy hadis bu buñ sukkandiku la kon eh, bëri na ahadis yoo xam ne mursal la ñoom dañ koy dàqaade boo demee ci ñoom moom ak magam Lamine Sall Cheikh Lamine Sall yal na yàlla yokk xam-xamam bu ñuy dàq ahadisu sadli yi maanaam ahadisu qabdu yi da dégg ñu indi ay ahadis ne hadisu mursal la hadisu mursal la nawun min ad-du'fi maanaam li muy dafa maanaam eh, benn xeet la ci xeeti hadiisu daif yi kon hadis bi wérul ñaareel bi ci tegee mooy wax yi nga xam ne borom xam-xam yi wax nañ ko ci Maamar ak borom xam-xam yi wax ko ci eh, maanaam mursalaatu zuhri wala boog balaaqaatu zuhri loolu yëpp yaakaar naa ne bëgguma cee guddal waaye imaamu Buseyri yi moo gën a xam ne hadis bi hadisu mursal la masalan xadisu mursal moom man ta wér xadisu mursal la xadis bële nga xam ne eh, maanaam maanaam eh, Buxaari yi andi na ko dégg nga am ñu ci jéem a wax bi Ibnu Hajar ñëwee da wax ne xadis la boo xam ne mawquuf la waaye saxiix la boobu moom Buxaari yi moom mokkal na xadis boobu noonu waaye bii moom Buxaari yi mokkalu ko waaw léegi imaamu Tirmisi indi na xadis bi ci al ilalul kabir ci passe un ci juz un ci passe quatre cent quarante cinq waaye da fekk mu ne wa saaltu muhammadan euh, xan hadisu maamar maanaam laaj na muhammad ci hadisu maamar bim jëlee ci zuhri mu jëlee ko ci salim mu jëlee ko ci baayam ne euh, maanaam xaylaan <clears throat> bi mu tuubee amoon na fukki jigéen ñi nekkoon ci moom mu ne mu ne ko euh, mu ne fa qaala wa hadisun gayru mahfuz maanaam Mouhamad Mouhamad ibn euh, Ismaïl na ko hadis bii nag man du buñ mokkal maanaam li muy tattale mooy hadis bi wérul rek mu ne innama <clears throat> ruwiya hada hada wala innama rawa hada Maamar bil Iraq rawa hada Maamar bil Iraq mu ne Maamar mu ngi solo hadis bi ci Iraq dégg nga Euh, su ko defee <clears throat> mu ne tey solo nañ jëlee ci Maamar mu jëlee ci Zuhri yi hadis bii maanaam wa qad ruwiya an Maamar an Zuhri hada al hadis mursalan kon même imaamu Tirmisi bi nga bëgg a wax ne wéral na ko su ma juumul dafa wax ne hadis bu mursal la te mursal nag nawun min ad-da'f kon yaakaar naa loolu mooy li nga xam ne mooy li leer ba tey am na am na boroom xam-xam yu ko bari yu ko tudd masalan ibnu abi atim <clears throat> andi na ko moom itamit ci ilal dafa wax ne laaj naa sama baay xadis bi nga xam ne yasid yasid ibnu sarih <clears throat> surayh maanaam yasid ibnu surayh daf koo nettali <clears throat> Eh, moom ak marwan ibnu muawiya ak ibnu ulya ak isa ibnu yunus jëlee ko ci maamar mu jëlee ko ci zuhri mu jëlee ko ci zalim mu jëlee ko ci baayam mu jëlee ko ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam qissatu xaylaan ibnu salama mu ne laaj na ko mu ne qaala abi sama baay na ma huwa wahmun loolu njuumte la innama huwa zuhri an ibnu abi suwaydi <clears throat> li wér mooy maanaam zuhri la mu jëlee ko ci ibnu abi suwaydin mu ne balaxanaa te foofu baatu balaxanaa la fa jëfandikoo kon loolu da ngay gis ne mursal la <clears throat> eh, kon ñëw na ci yeneen barab yu bari yoo xam ne su ma ko bëggoon a topp xëy na dafay gudd waaye daal li gën a wér mooy xadis moom xadisu mursal la te yaakaar naa loolu Eh, imaamu Buseyri dana ma ko nangul xadisu mursal nag bu ko nangoo ba pare moom daf daan dàq xadisu mursal kon lan moo tax tey mu ñëw saxal ko rawatina mursal bii nga xam ne dafa jóge ci bokk ci maanaam eh, tariq bi daf ci nekk imaamu Zuhri te Zuhri yi ku ne xam na ko ndax yenn borom kaw sax da ngay dégg ñu ne bala bala nu mu balaqatu Zuhri laysa bi sayin maanaam Zuhri yi ak ay balaqatam du du dara rawatina Mahmar mii nga xam ne tey maanaam lu ëpp ci ay mbiram. ci hadis yi nga xam ne soloon nañ ko ci bunt bi njuumte la loo xam ne boroom xam-xam yi saxal nañ waaw bu ko defee <clears throat> beneen bi mooy daanaka boobu moom laaj la ak it maanaam euh, lim ne imaamu albani wéral na ko maanaam imaamu albani dafa wax ne bi bi bi majmuu'i tariqihi bi majmuu'i bi majmuu'i tariqayhi la wax maanaam demal nga seetaan la nga liir bi majmuu'i tariqayhi maanaam ci ñaari xadis bi dafa am ñaari yoon yoo xam ne daf ci ñëw ñaar yoon yooyu nag am ay ay ay kii yu bari yu ci ñëw loolu laay wax bi majmuu tari tariqayhi waaye du ma du bi majmuu tariqihi majmuu tariqihi moom loolu kenn du ko wax ma bu doon bi majmuu bi majmuu turuqihi sax boobu mu tane waaye bi majmuu tariqihi bi majmuu tariqayhi maanaam boo ñaari yoon yi ñaari yoon yi lay wax ñaari yoon yooyu nag bu fekkee ne xóotal nga ci xaj bi ko waaye bëgguma mu bëgguma guddal ba ëpp dama lay laaj albani moom xam nañ ko ci saxahahu albani xasanahu albani comme niñ ko xamee léegi fan la ko imaamul bayhaqi wéralee fan la ko xaakim wéralee fan la ko ibnu xibaan wéralee ak ñoom ban xadis lañ wéral ndax xadisu buxaari bi lañ wéral wala xadis bi lañ wéral léegi beneen bi des mooy ñii nga xam ne tudd nga ko muy ñoom albani ñoom bayhaqi ibn aban ñooñu dafa bokk ci almutaaxiriin wala mutaqaddimiin yi léegi hal daafuhu almutaqaddimiin wa sahahu mutaaxiriin bu fekkee loolu dafa am ci hadis bi nga wax ñu parce que boobaa lu tax nga indi maanaam ni ko almutaaxiriin yi eh, wérale bàyyi mutaqaddimiin yi liñ ko niñ ko lottalee hadis bi li ci gën a wér mooy xulaasatul hadis mooy hadis bi mursal la mursal la mursal nawun mina doo fi yaakaar naa loolu borom xam-xam yi yépp nangu nañ ko ci wàllu xadis yow sax nangu ko ko tey même boo ko boo ko bañee fii tamit da ko nangu feneen ndax di nga dàq xadis boo xam ne danga nga naan mursal la te foofu loolu mooy tax nga dàq ko kon su ko defee lii lenn la ci li nga xam ne indi nañ ko ngir ay e, leeral léegi nag may wax ne imam Busayri e, wuuteeg yow ci masala taxul ma jàppal la dara comme ni ma gëmee ne taxul nga jàppal ma dara xam naa léeg-léeg nga mer na xaw ma attaqué waaye attaqué googu jàpp naa ne loolu système la rek boo xam ne li tubaab yi di wax tous les moyens sont pour la guerre maanaam booy booy guerre moom moyen bu ne baax na léegi te léeg-léeg nga cuqati léeg-léeg nga xokk comme ni ko Cheikh Khalifa Mbuub daan defee léeg-léeg mu xokk la léeg-léeg ngir bëgg nga mer ni ko mbër yi di defee it léeg-léeg loolu dafay am waaw waaye la dara te itam damay bëgg xam-xam génn loolu moo tax toujours rek ma ma ma intervenir te su ma intervenir maanaam buntu lay ubbi ngir xam-xam buntu lay ubbi ngir gëstu ndax ñun ñu nekk ci groupe bi yëpp ay noon dajewuñ fi ay soppe rek ñoo fi dajee ak ay xarit eh, su masala yi jàllee buñ dajee dañuy fooree amuñ problème waaye bu masala ñëwee nag masala moom masala la dëgg yàllaa ko moom kenn ku ne position bi nga taxaw da ngay défendre waaye ñu bàyyi xel ne position bi nga taxaw ngir defendre bu mu tax nga jàpp ne ki ki la weddi sa noon la bu mu tax nga tamit maanaam ki la weddi da war a saaga wala da ngeen a war a saaga wante déedéet ndax saaga moom ñëpp ko man xuloo it ñëpp ko man waaye nañ di fexe suñu saaga wante ak suñu xuloo wante ñu koy def ci texte yi ak nas eh, maanaam ci nas yi di ko def ci maanaam eh, maraaja yi bu ko defee di indi ay tegtal ay adilla maanaam ngir nit ñi nga xam ne ñun ñuy déglu ñu mën a jëriñu moo gën ñu xuloo ndax bu buñ xuloowee rek am na ñoo xam ne dootuñu déglu te su boobaa foofa gàggag bañ fa am dootu gàggante ko incha allahu rabbi maa ngi ciy ñaax sama bopp di ci ñaax ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu encore une fois xëy na jot gi amut waaye may wax ne mbooleem xadis boo xam ne wàcc na ci wane ne takk ñeenti jabar rek moo war a nekk wéru xadis bu ci wàcc rek am na illa waaw xadis bu ci wàcc rek am na illa amul benn xadis bu ci wér amu ci maanaam déggin bi nga xam lañ ko dégg ci alquran déggin la gannaaw ba ma ba lépp passé na ma d'accord ne maanaam borom xam-xam yi lépp ijmaaul ulama liñ dajee ñoom li nga xam ne ci lañ jubo ci seen nasriyaat ak ci seen eh, lifi yi nga xam ne mooy mooy mooy faxam yi ñu am ci aaya yi ci aaya bi mooy ne li gën a wér mooy ne ñeenti jabar kenn waru ko ab julit waru koo paase waaye nag buñ demee ci ahadis moom benn wérut ci faxamu bi ci alquran it am na ñeneen ñu dégg faxamu bi ñu ci am faxamu ne maanaam aaya bi tegtale lu ëpp loolu am na ñu wax na sax maanaam juróom-ñeenti jabar loolu dafa bokk ci xusuusam yonent bi alayhi salaatu wasalaam dégg nga ne juróom-ñeenti jabar la waaye loolu it amul sukkandikuwaay bu wér boo xam ne yàlla def na yonent amul sukkandikuwaay boo xam ne bu wér la ci alquran di leen ko ñoom ci alquran la ñuy jéem a sukkandiku ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam jigéen jum gis rek bëgg ko ñaan na ko maanaam au lieu mu can ko au lieu que mu nangam ak nangam ko indi woon ci xusuus yooyu noonu li yonent bi sallallahu alayhi wasallam dagal na jigéen may ko boppam andi woon ci xususiya li yonent bi alayhi salaam moo mën a takk ñe juróom-ñeenti jabar loola amul benn tegtal bu wér boo xam ne maanaam lu ñu mën a sukkandiku la lu jógee ci yàlla wala mu jógee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam amaa nag déggi ni borom xam-xam yi man damay wax toujours ne li bàyyi ña waxoon rek laay wax ida qaala ida qiila qaala allahu wa qaala rasulu fa bir rasi wal ayni waaye nag wa ida qiila qaala al fulaanu wa fulaanu fa hum rijalun wa nahnu rijal ñoom ay góor lañ ñu góor lañu am nañ droit xalaat ci texte yi ni ñuy xalaatee ci texte yi am droit xalaat ci alquran ni ñuy xalaatee ci alquran walaw sax ñoo ñu ëpp xam-xam wala ñoo ñu gën a daq xalaat waaye nag dëgg moom gune mën na ko maanaam dëgg puso bu réer la gune mën na koo for mag mën na koo for te xam-xam dëkkut fenn ñaareel bi it rubama tajidu fi naari maa laa tajidu fil bahri léegi-léeg nga fekk ci géej ci ci dex jën woo xam ne boo mbaaloon géej gi doo ko fa fekk ki tuuti xam-xam ak ki bëri xam-xam terewut kenn ku nekk war a war dëgg ku gis dëgg rek dëgg moom mooy dëgg su ko borom xam-xam gisee mooy dëgg su ko borom xam-xam bu tuuti gisee mooy dëgg ki amul xam-xam sax bu gisee dëgg dëgg mooy dëgg ndax dëgg moom dëgg yàlla la yàllaa ko moom moo ko jox ku ko neex salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu seen mbokk Cheikh Mouhamadul Habib Ndiaye al Kaymoor yi